asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, maa ngi leen di ziyaara euh, te di jéggalu bu baax a baax a baax a baax euh, di bokk di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na jàmm wàcc ci réew mi dañoo bëggoon a delsi rek ci Abbé Ndiaye Abbé njaay def na erreur boo xam ne du sax ñàkk xam-xam waaye complexe moo ko ci dugal c'est un type mal informé nit la koo xam ne euh, li nga xam ne moo war a ci bopp bi ñeneen na ko ci def muy tubaab bi ah nun nag yàgg nañu def tolérance tolérance mënut a passé ñu doon quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans nangu nangu ne euh, cinq pour cent yi euh, ñoo bokk ndey ak baay suñu doomi nijaay lañ suñu doomi bàjjen nu bokk benn gox benn kër kooku lu yàlla dogal la daanaka avant diini ji dugg walla ñu wax dem ci diine eh, abe bi lim wax eh, noonu rek la ko mën a waxe ndax eh, sunu maam dañ daan wax naan koy bañ mu nax la bu ko jox sa doom mu di ko jàngal yàlla dogal na tubaab bi moo détourné yuur gi Euh, moo tax waxee dafa mbi mu wax ko euh, te ñëpp nag di ko naqarlu ba ci église bi ndax kàddu yi sax waa église bi neexu leen quand on parle de la tolérance ni droit amee tolérance diine moo ko gën a am tolérance ndax la tolérance la tolérance c'est le fond c'est le fond d'une religion d'une société d'une culture et d'une civilisation moo tax nuy faral di jéggale jéggale mënta passé mënta passé ñu doon quatre-vingt-quinze pour cent d'une majorité écrasante d'une majorité des musulmans teewul teewul euh, ñoom considération doon ànd boobu ba nëgëni tubaab bi doxal fi la république euh, par tolérance ñu accepte lu ñu xamul tubaab bi di fi encore loolu ñu naan la laïcité euh, ñu accepter côté teguñu ko ci xam-xam franc yi noccee ko ci xam-xam une religion boo xam ne ñu ko exercer dans une république teewul en tant que di jullit ñu nangu ko accepter ko di ko doxal te bala ba alxuraan ne lakum diinukum wa liya diin euh, booba ñu ngi ko doon jëfe ci biir société bi te kenn tuddu ko tuddul baat bi bu tubaab bi ñu imposer ce que vous dites la laïcité muy une laïcité criminelle une laïcité hypocrite une une lay qui kii la locomotive de Satan ndax lépp lu bon lu ñaaw foo bëgg mu àgg fa foo mu àgg la koy transporter mooy la laïcité nga xam ne tubaab bi ko nocci ci diine yëpp créer ko muy une religion de la république ñu accepté ko par tolérance te wóor nañu ne l'islam bëgg ko wóor nañu ne wóor nañu ne dëppoolug sun aada wóor nañu ne dañ koo nangu parce que français bi mooy ki nga xam ne moo détourné suñ bopp yi def ci loo xam ne xamuñu lu mu doon ba tax na ñu ngi nii doom yi gis nga leen sànku nañ xale yu ci baree baree bari koo ci sa bàyyi def da koo saaga waaye lay comprendre ñu war a jóg nag xam ne di président Ousmane Sonko wax ah, am njàng xale day jàng njàng xale day jàng ci biir njàng moomu c'est l'éducation une éducation buñ ko waxee dafa dañ ko wutal ay institution taxawu ko ba xale yi seen bopp mën a ubbi ko ubbi bopp réew mi nag ubbi bopp réew mi ak xale yi ci quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans alxuraan da cee war a bokk alxuraan da cee war a bokk ndax ku sañoon ku ne ku sañoon ku ne sa doom wàcc alxuraan kon am nañ benn institution boo xam ne moo yor njàngum xale yi ak li xale yi war a xam maa ngi encouragé le président de la république di encouragé son ministre son premier ministre nan dugal nan parce que nit ñi amu ci jot sa doom mënul samedi bu ne mu dem ca daara ji ëllëg mu dem fële comme mi ngi ci biir école bi nan doon li deux heures supplémentaires yoo xam ne dañuy jàngale alxuraan ci biir daara ji bu ko defee xale yi mën a xam dara jàngale ay ponki julli parce que nu ñu war a def la te kenn ku ne boo sañoon sa doom def ko lii abbe bi wax nag abbe bi wax moom la concerné moom la concerné ñu néew ñu néew sant njaay dama ne ma tudd fukk ñaar ñooy ay chrétien wala ñooy leneen lu dul julit ñu sant Njaay ma xam leen ñëpp ñëpp quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi ay jullit lañ ay sénégalais lañ ay africain lañ ay pan africaniste lañ ay nit yoo xam ne gëmuñu tubaab gëmuñu am na ñoo xam ne yàlla leen nattu awee ko ci bible bi aw yàlla leen awale ko ci baay bi ndax tubaab bi muy dikk livre bi la ëndaale livre bu mu ëndaale nag mu ëndaale ci la brainwash bopp yu bëree bëree bëri te ñu di leen fàttali toutes les religions sont nées en Afrique toute la religion a été inventée par des Africains tous les prophètes tous les prophètes ce sont des Africains le prophète Mohammed est un Africain Jésus-Christ est un Africain Jésus-Christ bi ko yaayam ëmbee Égypte la làqu waaye bi muy am doom mi ngi amee doom Bethléem Bethléem c'est une partie ci Palestine foofu la amee doom Jésus Christ dund na ba génn àdduna tànkam bi musu koo teg ci un pays européen tànkam yëpp ak doxinam yëpp ci Afrique la ko doxe dundu na ba génn àdduna musta ñëw Amérique xamul fi Amérique xamul fi Canada xamul fi Australie Jésus Christ juróomi lakk la wax juróomi làkk lay wax juróomi langue yëpp langue africaine la Jésus Christ déggul français déggul anglais déggul espagnol déggul chinois déggul portugais li muy lakk li muy làkk-làkk yépp làkku africain la kon Jésus Christ buy dellu si waat buy dellu si fu muy ñibbisi fu dul Afrique Afrique le dëkk fi lay ñibbisi toutes les religions son nées en Afrique la religion a été inventée par les Africains notre civilisation la civilisation africaine est le fondement des civilisations du monde loolu moom Euh, booy ñu nangul na ko comme li may leen di wax rek man jëli ko ci docteur Cheikh Anta Diop xamal la ñu ne suñu borom juróomi xeeti doomi aadama la liggéey yàlla juróomi xeeti doomu aadama la defar juróom yooyu yëpp yëpp Afrique la leen defaree kenn kenn képp mu ci génn mooy l'homo sapiens sapiens ki nga xam ne moo peuplé le reste du monde bu dul nun tubaab du am bu tubaab du am Abbé Ndiaye def nga erreur wax nga loo xamut noonu nag nooy seen ndey moo tax ñuy muñ nit ku ñuul dafa jur nit ku ñuul dafa jur maanaam noo jur àdduna moo tax ñaare day metti duñ ko yëg day mel ni koy màttal sa doom bi di la mat koy nàmpal sa doom bi di la mat waaw yooyu yëpp suñu borom dañuy wax charge ak pouvoir ak capacité ak longueur d'entendement boo xam ne mën nañoo tollee lu baree baree bari mais nag abbé li nga wax ëpp na yéen église bi kan boo ko waxante dëgg bureau bu ngeen di dugg yooyu nga takk seen croix école bu ngeen di dem xamu leen ab jullit fa ne wala leen dangeen ngeen takk seen croix ku ngeen di seeti ak ku mën a muy kilifa da ngeen takk seen croix yéen sœurs yi sax da di muuru da ngeen di muuru ana li tax ñu aaye muuraay gi muuraay gi islam def muy fulaar muy fulaar bu mu teg seen bopp dafa dem ba nekk benn mode les les les modèles compagnie modèles yi jéem nañ ko recopier waaye xale yi nga xam ne eh, gis nan ko ñoom ni xale jullit yi muuroo noonu lañ bëgg di muuroo dafa dem ba mel ne une popularité dafa dem ba siiw dafa dem ba xale yi dañ ko bëgg en Israël en Israël par exemple da ngay muusal sa doom mu dem école ba jàngi muur waaye bu ñëwee bu ñu da ngay fekk ñu muur ko muuru jullit wala xarit yi muuru muuru jullit di fotow influence boobu influence boobu tax ñu ne dañu bañu mu màggaale ci xale yi ñu arrêté ko gis ngeen ko LGBT LGBT gis ngeen ko ci fond ca fond bi lañ koy def lépp loo xool wala nga laal sa doom laal ko affaire LGBT ngi ay ngóor jigéen moo tax seen drapeau bi dans les écoles waaw cette boobu ñu ko dugal ci biir école yi muy loo xam ne ay jullit lañ te bi fi Ablaye nekk ba ndëgë ni mi ngi daw ci biir école bi te ba ndëgë ni ba ndëgë ni ci suñ suñ mbokk yi génn wax waaye wax dafa jot am na loo xam ne bàkkaar lay doon te yàlla duñ ko mën a jéggal ndax yàlla moo nu jox majorité bi et est majorité la day répondre avec les réalités de la démocratie waaw qu'est-ce qu'une majorité dans la démocratie lan mooy majorité dans une démocratie bu ngeen ko xamul du sotti dafa mel ne Macky Sall boo amoon quarante huit pour cent day daa doon président de la république te am na soixante deux yoo xam ne dañ koo contre dañ ko cotisé moom mooy dem nun nag yàlla daw ñu quatre vingt quinze pour cent de musulmans avec du respect avec du respect euh, Abbé Ndiaye Abbé Ndiaye euh, waxulu ëpp sax waxulu ëpp parce que xale yi gone lan lay xoole dafa mel ni un type transformé un type colonisé quand tu es colonisé tu contrôles plus ta mentalité quand tu es colonisé tu es colonisé da ngay yëgoor yëgoor yi dem le type colonisé du am xorom le type colonisé du mën a wax dëgg le type colonisé buy wax day lox le type colonisé bo wax day jeng le type colonisé yàlla ci boppam gëmu le type colonisé par la langue de son maître loolu moo dal a Ndiaye moo waxee noonu waaye ba tey suñ dooma da nga jur doom mu dof wala nga jur doom mu kata mu mu kata jantabe wala nga jur doom muy toxi yàmba moom mi ci suñu doom yooyu la bokk moo tax mere wuñ ko euh, ci nun la bokk waaw ku jur doom nag mu feebar euh, sañ nga ko dàmp wala nga ndëppal ko ci ndëpp la toll ndëpp la toll waaye merewuñ église bi merewuñ ñu doon àndal te xam naa ne am naa ci lu ma wér ne chrétien bëri d'accord président Ousmane Sonko lépp loo xam wax na ko dafay jëriñ askan wi lépp loo wax na ko du église wala jàkka ji wala jumaa yi déedéet daf ko yokk pour l'intérêt des sénégalais mu moo nu déggee noonu benn école rek a nekk Sénégal benn école bëgg ñoo takkali pot kenn du fi musóoru dugg ci école te ñoom ñiy jàngale si dañuy muuru ñoom dañuy muuru dañuy bañ xale yi di muuru pour màgg doon ay jullit comme ni LGBT jëlee couleur am yooyu def ko ci télévision bi bu xale yi foog couleur bi nga koy gis mais kenn du wax dara ah ñoom seen doom yi aussi dañuy yëg ne xale yi bu ñu dikkee dañuy bëgg a muuru. wala ñu leen bett muuru seen i kër fii aux États-Unis wax naa leen ko fi keroog man je représente une partie de la communauté sénégalaise et africaine bokk ci ay mouvement la police de New York state bu New York a chaque fois bu ñu def réunion damay dem représenter fa une bonne partie ah mais dañ may permettre may wax ah ñi xeex ñi xeex ba New York gii kum neex musóoru fu la neex man ci laa bokk ci laa bokk ci laa bokk te heure bu ma taxawee défendre leen ci seen société la ak seen culture ak nit ñi doxalee ah ban comprendre ma ah fii aux États-Unis tey li ma wax policiers yi ñu def ci ay recherche gis ko dëgg la boo demee dans les écoles publiques xale yi musóoru yi musóoru ñoo dàq jàng ca école ba les meilleures notes doomi jullit yi la mooy ñuy musóoru te boo ñëwee ci bitti bu école bi wàcc ñi xeex ñi xeex doo ci gis mukk mukk ñaar ñu musóoru xeex doo ko gis te it fii aux États-Unis culture la fi bu xale yi wàccee boutique yi nga xam ne ñoo nekk ci booru école bi xale yi ni dugg ci biir di sàcc di sàcc mais police def na investigation mosuñoo gis benn jullit bu muuru dugg ci biir di këf ay tàngal di sàcc mosuñu ko ciy gis te it farantu farantu yi ah mosuñu koo gis am ku muuru def ko mosuñoo dox ba gis ñaari julit ku muuru ak ku di fóonante ci mbedd duñ ko gis mosuñoo dox ba gisit ku muuru ah ngànk cigarette di dox ci mbedd mi yooyu ay signe la yoo xam ne yu am solo la xale yi nag bu ñu leen di toppandoo bëgg a mel ne ñoom dañuy def ne ay jullit lañ wala dañuy defe ne changer mode bi ah loolu moo tax ñu tiit loolu tax ñu tiit te lii ma leen wax lii noonu la ko police investigué xool ko gis li ma wax lépp buñ duggee ci école yi xale yi xale yi musooroo raw ñoo dàq jàng foofu ñoo dàq jàng foofu xale yi benn problème ni ci police am police dafa ne xale yi bu ñuy génn seen kër dañuy muuru waaye bu ndee ba ci mbedd mi dindi ko ñu laaj ma ci lu ma ci xam man loolu la parce que xale bi dafa respecté ndeyam respecté baayam moo day muuru ci kër gi bu génnee nag ànd ak xarit yi xëy na xarit yaa ngi koy tooñ xëy na yaa ngi koy tooñ wala mu yëg ne xale yi dañoo bëgg a soppi ah, mu ne daal baal mu suturaal seen waa kër jëlug musóoram denc ah école ba xëy na bëgguñu ko wala ñu koy jàngal bëgguñu ko te day saako xam-xam mu lem musóoram def ci saakam toog di déglu mais tolérance boobu tolérance boobu ñu am l'islam da koo accepté pourquoi Abbé Ndiaye Abbé Ndiaye kii kii du nit surtout sant Ndiaye jaata dëkk ci Kajoor gii xawma lu la dugal ci lii ba na Abbé Ndiaye loolu ci dugal man xawma ko ah waaye li lu ci dugal lu rëy la lu rëy rëy la te yii war nga sa rob nga koo summi war nga summi doone leneen parce que li ngay def mënoo ci dara waaw ah, tu représentes une communauté boo xam ne suñu mbokk lañ une communauté religieuse une communauté boo xam ne depuis la naissance du Sénégal je peux dire nous sommes ensemble kon te sa conneries yi da nga koy bàyyi Ousmane Sonko du sa morom du sa morom te dafa am lu may bañ rek ne kon danaa wax loo xam ne euh, dana demee neneen ba sunu mënaan dekkum diine ko wala diin boobu foo nekk yow loo ci xam bay wax dama bëgg nga loo ci xam bay wax kon nu bokk di jégalu di jégalu bu baax a baax.